gars yi j'espère que yéen ci jàmm bu la laajee kan moo ëpp professionnalisme ci kàcc yi nga xam ni dafa nekk ci kàcc yi jël ko def ko profession ba nga xam ni yeyoon na ci ay diplôme yu bëree bëri bu ñu ko laajee jàppal kii nii déglu kii bu baax a baax li mu wax déglu ko de dafa wax ni. dañu dañ ne les présidents président conseil départemental yi ànd ak maire yëpp dañoo daje ne bu ñu sañoon nga ñëw ñu yóbbu la nga gis fii may wax yow ils sont très en colère. daal ni du ma wàcc parce que danañ leen loolu du ma ko mën man daal bàyyi leen dafa jël avion dem Bakel tiim ko wër-wër ba mu neex ko mu delluwaat Ndakaaru déglu leen ko fi comme léegi am naa roppalaan ba may wut nguur gi nag aw moon roppalaan waaye léegi comme am naa roppalaan léegi avec une bonne ma euh, une machine à café yooyu yëpp ci kaw bàyyi leen rek ma nekk ci kaw survolé euh, ñu may toppatoo ci kaw su ma paree delluwaat sama dëkk delluwaat dak Ndakaaru Njaay c'est ça qu'il a fait voilà léegi Pape Djibril Fall lii la wax léegi nan lañ ko mën a démentir image image yo koy weddi léegi déglu euh, seetaan leen vidéo président bii nii vidéo bi nga xam ne si ci la demee Bakel ñu teetu ko di ko yooxu muy saafante sax ak xale yeeg jigéen ñi seetaan xam nga nit lii lu lu warul dëgg la kàcc su fekkee ni tàmm na ko ba mu nekk jàngoro ci moom mu nekk kurobët ci moom saa yaram wi xese ne li koy teg kàcc eh, li koy tere kàcc du yomb il faut mu wut lu mu kàcc teg ko ci penc mi parce que yaram bi moo koy laaj day xesan li nekk ci biir bi mooy gës dafa am ñoo xam ne day suñu fenn lu mel ni ginaar mooy nekk seen biir di gës saa bu ginaar googu jógee gës ñoom dinañ jóg euh, defi leen ginaar ga sant day mel ni ginaar gi day ne ci biir di gës ni leen jóg leen ngeen wuti lu ngeen kàccee dem leen wuti lu ngeen sos dem leen wuti lu ngeen créer dem leen wuti lu ngeen euh, manipuler nit ñi mais li yii nii yii xoolal li xoolal kàcc yi kàcc yi mag yu tooy xepp yoo xam ni dangay teg kàcc yi ni teg li koy weddi nii léegi euh, image mooy wax ak ay image daal mooy wax image mooy wax image bi nga xam ni ci nga tiré fen wi ngay indi image boo xam ne si mooy weddi waat kàcc yi nga xam ne si moo nekk ci penc mi ay kàcc kese la. professionnel dañ ne les présidents président conseil départemental yi ànd ak maire yëpp dañoo daje ne bu ñu sañoon nga ñëw ñu yóbbu la nga gis li xaw. c'est le père du mensonge. fii may wax ak yow ils sont très en il est trop fort. parce que euh, danañ leen loolu du ma ko mën man daal bàyyi leen